kii xarit yi ñuy seetaan seen émission Oumou Show Oumou Show nag ñuuluk Oumou Show 24 euh, décembre ah muy émission boo xam ne dafa nar a ndax képp rek koo xam ne ne yaa ngi safoo émission bi euh, ñu ngi lay wax Merry Christmas ah joyeux Noël di ñaanal képp rek koo xam ne yaa ngi toog sa télé di ñu seetaan fas yéene béggee émission bu mag bii di Oumou Show ma ànd ceeg sama sœur man ak Ngoy Thiali ah ñu fas yéene yëngal jamono ak suñu ndaanaan bi nga xam ne ne ah, ñoo porté suñu choix ci moom muy Ndeye jaara mu baax mi nga xam ne ne li muy def da koo mën laaw la cat macha allah mu Sëriñ Fàllu Mbàkke ah Adja Ngoy spécial Noël lañ wax de macha allah 24 décembre ànd ak. Euh, émission bu mag bi di Oumou Show ànd ceeg Adja Ngoy Thialim bu baax mi ah tey bés bi dafa war a ala mi nag. <laughs> waaw waaw man sa meuf mbay jaaxal na ma. de yow laa ko tudde kenn koo gis tubaarkàlla macha allah. <laughs> yow laa ko tuddee di wax Noël. merci ñu ngi nuyu waa àddina nuyu waa Sénégal. Mm-hmm. nuyu monde monde entier. Mm-hmm. di ñaan yàlla yàlla defal ñu jàmm. musal ñu ci wopp musal ñu ci ràgg. amiin mosal ci mboolem jullit. amiin ñi ci hôpitaux yàlla may leen jàmm. ñi ci prison yi umu tubaarkàlla. yàlla defal leen jàmm ñu yor ay jafe-jafe. amiin ci jamono bii nga xam ne jafe-jafe yi mën naa doon alal. Mm-hmm. mën naa doon lu ñu bëgg a faj. mën naa doon lu ñu bëgg a def. Mm-hmm. mën naa doon koo xamante ni mu ngi ci. Mm-hmm. xat-xat xat yàlla teggi ko ci barke yonent bi. amiin yaa rabbi sa borom may ñu nag. ñu fi teewe ko ay déwén yu bari. amiin nuyu naa la. Ah, maa ngi lay fay moom tey nag moom <laughs> tey moom tey moom plateau bi dafa ala ah dafa ala daaw me moom xanaa fas yéene bëggal suñuy soppe rek macha <laughs> allah nee naa ko télé bi ñuy nuru ba noppite di ñu dajale waaw waaw la télé qui nous ressemble et nous rassemble ànd ak Oumou Sow moo ñëw euh, defal leen plateau bu mm. yaañi bi ànd ceeg nag Paradise traiteur bi nga xam ne ne tey euh, ñun ñoo porté suñu choix ci moom mm-hmm. ndax euh, day xale am jom ñëw nag tey ci plateau bi fas yéene mm. wone boppam tey nag caméraman yi yeeg waa groupe séduction ñëpp tey dinañ bëggee. lay jaar mu Serigne Fallou. maa ngi lay ziar. waa Umu. ah jéeg bi nii nga def ci 24 décembre bi daal. ah boobu émission ëpp na macha allah. maa ngi leen di sant yàlla julli ci yonent bi. ndeysaan sant samay ñaari waajur. sant Serigne Fallou sama wasi. wallaay Mouhamadou El Fadel. ah um moomu um moomu sëriñ wallaay da koy caali suñu nawle bu baax. ndeysaan xam ne fu giw li nekk fekk na leen fa. wér la. waa di la wax si waaye Noël macha allah. at mii daal yàlla nañu ko yàgg a teewe. atum jàmm la. Uh-huh. te at mu nar a ñëw. na ma ñaaw yàlla na mel ni at mi. macha allah yàlla na ko yàgg teewe uh-huh. tey nu ñëw rek wuy si la nag. tubaarkàlla ci ngéwal. ci ngéwal foddat sabari foddat tamay rek wuy si umu. <laughs> ah baax na kon nag <laughs> mbokk yeeg xarit yi ñuy seetaan si émission bu mag bi di Oumou Show ah ñu ne di leen souhaiter joyeux Noël. di ko souhaité suñu yaay Kumba Ndiaye di ko souhaité macha allah suñuy sœur di ko souhaité képp rek koo xam ne yaa ngi ci sa télé di safo di seetaan émission bi di Oumou Show euh, di ko souhaité ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi nekk bitim réew di ñu seetaan sopp émission bi loolu loolu loolu rawatina ak waa France rawatina ak waa itali ah ak waa États-Unis duñ leen fàtte di leen nuyu de passage di leen wax ne nag émission bi tey euh, ñi ngi ko jagleel ki nga xam ne nag euh, mooy alaaji Papa Diop mu baax mi ah bëgg jaara mu ah jaara nee na moom yow na taasi ko tam ah alaaji Papa Diop macha allah kon nag euh, suñu parrain boobu ñu ngi lay ziar bu baax a baax di la ñaanal jàmm kon nag ma bàyyi rek aji jaara macha allah nday jaara bi ak ay musiciens ñu yëngal tuuti nag euh, nuyoo ak yéen nag ci 24 bi di leen jox seen Noël. <laughs> nday jaara kaay ñu dem ba ndindi sëñ Fallu nga fa nday jaara kaay ñu dem ba ndindi sëñ Fallu nga fa eey nday jaara ñang kaay ñu dem ba ndindi sëñ Fallu nga fa ndindi sëñ Fallu mbayeen gay ndindik sëñ Fallu lu ma way way way way te wayu ma Fallu samay way du umu ngoy sëriñ Fallu ñaas la ci kanam loo ko sëlëm sëlëm du deñ xoolal umu nu ubbee sëriñ Fallu teyam ci sëriñ Fallu bàyyi sëriñ Abdou Karim Mbàkke ndindi bàyyi sëñ Seex Umi Mbàkke mi ma dëkkal Pikin bàyyi soxna Daba Mbàkke mi ma ci penku jumaa ji ni umu moo samp ndindi di def di dindi ku mu gindi eey ñaas la ci sëlëm sëlëm du Fallou bu saja xeew bi càmmiñal ma reema kunte ay soxna mbeen waaw waaw Fallou Fallou Fallou xanaa moom rek sax a ñun ñu juróom ñaar benn sëriñ Fallou umu saw faj na sa aajo ñaari sëriñ Fallou soo ko waxee texe nga kenn demul bala ñel jox leen jasaaka demoot jub yi ni sol moo nu koy jox ginaar yi ni njooñ moo nu koy jox sëñ Fallou wóor te bëgg Fallou wóor Oumou Sow xoolal ni Fallou wóor Fallou wóor Oumou pëlu sëriñ Fallou ba dellu ngeewal dindi la nga defoon a jagan yàlla noppi na dindi la nga defoon a jagan yàlla noppi na bul leen di sonal biir ñaw ni lem omi fàllu awa bu sobaara mi ci kàddu geeg bas mi beru yokku na jumaay Tuuba sëñ Falloo wóor aynu rahmati Touba. billaay sëñ waay xoolal eey ne leen soxna May. billaay jasaaka May Galas. jasaaka May Galas. ma May Galas. jasaaka soxna May. mbasa mbasa. waa ummi sëñ Fallou la ubbee. waaw waaw sëñ Fallou la ubbee. baara mi ci kàddu gi. koo koy bàyyi sëñ Abdou Karim Mbacke Falilu suñu sëriñ bu baax boobu nga xam ne ñu ngi koy nuyu fële ca Touba di nuyu yaay booy puy macha allah tey xool yëpp a ngi féex képp ku jàkkaarloog nag ah, day jaara mii xam ne sëriñ Fallou la bëgg ci xolam ah sama mbokku taalibe bi ah macha allah boo déggee lii mu wax ne sëriñ Fallou ah sa xol dina féex ba tax na macha allah eh, dama daan dégg taasukat yi ajaangooy naan sëñ Fallou ñaasi kanam loo ko sëlam sëlam du du doy ma koy dégg ci xale yi di ko waxantu am ku ma ne alaaji Papa Diop mi ngi ñuy seetaan mu baax mi ne ma xanaa xamoo loolu ñu doon wax xale yi di ko wër di wax moom moom nday jaara moo ko génne sëñ ñaar ñaas kanam xanaa yaa ajaa dégg nga loolu loo dé loo gisee loolu waaw xam nga macha allah mm-hmm. nday jaara mi umu mm-hmm. Euh, taasaloog la. wallaay ngay faral di ko wax. Hmm. mës naa def ak ñoom plateau. Hmm. ci corona du ma waroon doog ñoom. mu toj ko. Ah. bi ñu toogee tubaarkàlla macha allah lu ñuy commencé lu commencé rek dafa daal di yuuxu daal di nekk du nu wóorandoog yow yow de. dangay dem banu waaw dangay dem banu xoolal waaw mi la la ummu. wallaay ngooy ma defee woon ko ci génn nooy na ci na biir TV. ndeysaan maa ngi ciy nuyu Maodo Gales passage. ndeysaan di ci nuyu gal garmi mm-hmm. sama mag sama xarit ummu. waaw macha allah. defe naa ca la ñu fasante woon ma ak yow. kóolere ma ñëw ci sa anniversaire bi couvrir ko. ngay nit ku noble. kenn du yow di nit ku am kóolere sama rakk ji. yow tubaarkàlla ñi la ne Pëlu Sëñ Fallu juumuñu. Mm-hmm. umu loolaa la gën loolaalul. te bala ngaa xam ne loolaa la gën loolaalul saw pulo laajal ñi la tooñoon daaw te ren tubaarkàlla macha allah ndax tal nañ koom déet ndax tubaarkàlla macha allah sëñ Fallou la teg loxo liñ naan sëñ Fallou ma may xorom moo ma wis xorom alaaji Alassane Mbaye di ko wax looloo am kon umu invité nga tey taa solo wallaay tubaarkàlla sama rakk ci saw sa a ah baax na yàlla na sa jàmm yàgg ngooy nee naa wax sa mbaax waaye du wàññi saw mbaax dara ah ngay nit ku baax ma lay souhaité atum jàmm atum mm-hmm. naataange di la souhaité joyeux Noël yaayu ngoore mm-hmm. ah, kii Thiam. Aram Thiam Aram Thiam mu baax mi Mouhamed Aji Ndeye Mbaye Aji Ndeye Mbaye Ajaratu ah, Kuma Ndiaye ngi lay ziar waa Nations Unies gëm a dëkk nga xam ne bu heure bi commencé umu warum xolu jamaa mënuñu leen a fay eh. tubaarkàlla dañuy jàkkaarloog ñun ndeysaan Alpha sama doom ji ñawal ma lii tubaarkàlla wallaay bàyyi cheikh yi ndeysaan umu dama kontaan tey wallaay wallaay sama a nii amin amin amin amin nee naa ko émission nag euh, bu duglewul yeetewul ay naxaate la mm. macha allah ñu koy euh, suwetee nag Lisa Diatta mm. borom Luxembourg Lisa Diatta mi nga xam ne moom a génn tey ci sañte bu mm-hmm. rafet bi sama waa ji te xam naa ne nee na sa bos dina ñëw waaw ndeysaan sama bos na ñëw la waaw waaw ah, ah Lisa Diatta ah nday jaara nag nee na incha allah le 22 na bosam ñëw loo wax ci Lisa jaata mu baax mi waaye Lisa ni yéena ba neena neena new la bëgg yow la bëgg eh. keneen ku mu xam dan ko koo jàllax yow la en séeri neena yow neena yow neena ku fa dan ko koo yàllax yow la bëgg Oumou Sow ku la jur jël koo nopp mu nang dëgg la eh waay ko. eh waay. xam nga Oumou Sow góor su yàlla tera. ci góoros te nga jëm. waaw waaw góor su yàlla tera. eh waay eh, góor su yàlla ci góoros te nga jëm góor su yàlla Lisa. waaw waaw. Jaata. waaw bu ko dalee daf koo waaye doon ko. waaw waaw. fa nga bokk dañ te sax nag teral sa day buy joxee barke kenn du la yërëm umu eh, saw ma ni naa la wax lu baax day ma wax la lu baax ma set TV yëngu ma dellu géwél waaw Lisa yaay la sàkkal baay ah. te la sàkkal yaay nag xam naa doo sayaan eh, kenn samu la wuy wa deelu ngëm eh. yaa juddoo ci ngëm te màgg ci yaru te ci tabe <laughs> ci nekk di yëngali për bay ah. laa ajuma li waxuma ñoom lii saa laay wax edda eh, waay boo nee jeet dégg ci nekk di yëngali për laa ajuma leen waxuma ak ñoom lii saa laay waxal lii saa bi nga xewee ci réew mi dafa yàgg kenn fàttewu yaata boisson bi gënoon a neex lii saa la tudd <laughs> jaata boo nee jeet dama ni um saw nan waxtaan waaw waaw taasu rek waxtaan la. waxtaan rek. nan waxtaan nag. rek. xoolal. lii cosaani démb la. waaw waaw soo xel yay daje. waaw koo xel li ba xel xalaatoo ko. waaw ci umma sow bonum sëñ Fallu. xam nga dootoo koo defat. ku dugg ci suñu garde tey dootoo koo defat. booy jaali ku dugg ci seen garde bii ndax dina koo defat. ay seen TV ku dugg ci suñu garde. tubaarkàlla ah macha allah macha allah Ngoy. waaw Adja ñun ni ñu nuyoowee rek dafa riche. yaa Adja maa la parce que nuyoo bi dafa am chaleur. te dëkk bi dafa mhm. sedd aji. wallaay dëgg la Ndey Jaara. Mhm. dëkk bi dafa sedd dafa mhm. laaj ay émission yu am chaleur. Euh, boo gisee 24 bi ñu porté suñu choix ci yow. dañu ne fi réew mi toll nekkuñu été. yëf yi dafa tombeek hiver. hiver bi nag teel a ñëw teel a songu nit ñi. kon dañu war a teg yu chaud yu tàng. ànd waa Paradise. ñu nuy jox xeeti baax baax yi ànd ak macha allah baay tama ah ñuy bàkk tamit eh, cool yeeg ah xaadim ta xaadim tama ñuy def yu baax waaw dëgg la ndax taasu dañ koo xorom te way dañ koo suukar dëgg la ay jaar lay jaar taasukat yi tubaarkàlla mhm. nag fu nu dugg toj ko mm, maa ngi profité di nuyu tous les femmes taasukat di Sénégal waaw waaw di jël nuyoo bi di ko teg ci suñu présidente Ndella Xalass mm. nga ne fu ngeen dugg toj ko waa fu nu dugg rajaxe ñun dañ daan dem programme di ñëw bu ñu ñëwee ne papa toj nañ fii toj nañ fii toj nañ fii sama papa ne bu ngeen tojee fépp fu ñuy dëkk. kenn xamul da waaye yéen taasukat yi bu ngeen tojee fépp fu ñuy dëkk. xanaa ni wutaat ciment rek ak xeer ak suuf yooyu tabax. te damay dégg taasukat yi naan. maay seen directeur. yow taasukat yi ci réew mi seen lan nga. man maay seen musiba naaru laay maa ngi toog. <laughs> maay seen musiba mbaa bëkkumba. déedéet. maa ngi toog. mbaa yaay lakk daay gi. hey. la jàmbaar de Amérique et de la diaspora. ewaay day di la jox madame Mbacké bàyyi laak li nga li jàmbaar de Amérique et de la diaspora day di la jox ab eh, sa giro bàyyi laak la nga yor madame Mbacké ewaay jeeg way wi yàgg na Khady way wi yàgg Oumou Sow maa ngi woy sa waaw wallaay wallaay suñu waay madame sociale. Giroom Madi ndeysaan. ab sa Giroom madame Mbakke. Fama Giroom. Fama Faye seede ma ma woy ab sa Giroom sa kii. Ndéla Xalaas. Dior Ndiaye seede leen ma ma woy ab sa Giroom madame Mbakke. seen maam kuli koodu muy daw bër ba damel Masamba Yaaye Faal damel am sabel damel Masamba takku buur doomi buur alsa naam biro ki liggéey million yi Amérique andi def Afrique Vision ah, boole jigéen di nu financé di def lu di wax lu baax moom lañ dénk sëñ Mamor magi magay maamam xoolal eey la jàmbaar de Amérique eey et de la diaspora te yëkkati di la jox madame ay la nga yor Papa Diop Diop naan njaag fay caaka ah, ak ndeer waalo waalo waaw ah, waaw Papa Diop bàyyi Serigne Fallou bàyyi Cheikh Ibra ñaari yoon madame Mbacké def ci Sénégal def ko ci dun bi ci bii dun ee eh, kenn amul safay xanaa xamoo boo nee jeeg jegu ci nekk déggali ma ah. waaye man laajuma man waxu maak ñoom Pape Sarr laay waxal. xoolal fanweeri dameel yaa ñett say maam lanu la sa maam waaye liggéeyu ndey bitig nag ku réglé perte nag laajal sa yaay yaay la sàkkal baay te baay la sàkkal yaay ab sa doo sa yaan kenn tamu la programme wuy wëndi la ci réew mi nag ko fii nii wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg Absa lu ko waay wax ñun la ko waxal wax nga dëgg Absa giroo giroo ma di doo ñoom du nu yow du yàgg ba ngay ñoom bokku laak ñii ah xam naa sax doo bokk ak ñoom yi fiyew ewa ku sa reeri bàyyi doy doo xaaraani ngoy nag ni la ko wax kuy wekku njoowaan danga yaakaara fiix lu ba fañal taasu dafa am waaw taasantu dafa am ah. te taasooy ndayra lii la yàlla def ak sa giro giro giro ma di saw xam nga li may wax am sax ewaay saa xewaray maamam kuli ko du nguy bër géej ba calaw samba yaas gis ja doo ñoom nu doo walaat ñoom doo bokk ñoom yi li nga def ci dun bi xoolal nag ab sa sans façon eh ab sa giro moo boole mbul ak làmbaay ci kenn meru yaayi maaraataal ngiru faama fay ah, yàlla def maaraataal xala jaaga ak biram taal jaaga maam jaaga seen maam lii wax jaal seen ah, boo demee jawaan seen kër maam ku leen dundal te xoolal ku ngeen nopp mu naan eh alaaji yaa ma branché bu mu saw bu rafet bi ngoy jaali sama nawle bi toog di wax lu baax waaw waaw eh waay joor ab sa giro li mu def jaayuma ko de waxaluma ko dara dama koo gis mu def ko ci réew mi jigéen ju sonn mu ku amul dara ab sa jox du ko tiitaroo am na ñoo nu takkee la mu dof te takk seen ah. dañuy yëf la ñun duñu ko aal kenn te duñu ko luye sunu yëf la ab sa giroo sunu yëf la ñëwal duñu ko jaay kenn te duñu ko luye sunu yëf la xoolal kon das ko das ko Oumou Sow tey ci ndawoo nga tas fi tasaare fi xale bi teg lii waaw waaw paradise traiteur inspecteur li yëngal kër gi xam nga lii koo toggal dafay xees dafay leer am wéru yaram ànd ak ay nasuka wala ferñeent yi mu ànd tiiw luy kataw tiiw laaj ma luy kataw tiiw jaara luy kataw tiiw madame Mbacke ah. mooy kataw tiiw eh, luy kataw tiiw xoolal danu taraw ñu ko tararaw raw kataw tiiw la moon ñu katam ñu ko kataraw raw kataw tiiw laal naat. ah Ngoy Jaali. waaw 24 décembre bi xumb na de. Oh, naa ko Kéwé Dieng ngi noonu Gambia du ñu seetaan. macha allah boss maa ko tukkonte ngi noonu du ñu ah, seetaan jigéenu Waly Seck is my boss. barkalla ah. nee naa la waa Gambie ña ngay pare Waly Seck tey si guddi bu ñu paree fii ca Waly ba lañ dem rëqi ba mu neex. Maria Sine Mesa bi mooy sa tend daawur mbaay ak galo daam tukulóor kura njéene moo woote ca Gambie nag. borom bu rafet bi ëpp na. jaaga la yaayam tudd. barki borom Tuuba waaye coon la baayam tudd. wallaay ca kaw waaye Ablaye Naar Seck sama xarit. la baayam tudd mhm. dëgg la mooy taaw. eh Ablaye Ablaye Seck jaaree mooy maamam. wallaay dëgg la. Maria Seck faramaare ni Kajoor ak Bawol. Bawol laata Diop dégg baay dimbi mm. man baayam ablaay Naar moom ma bëgg. ndeysaan sax xamuma ko. Mm-hmm. waali da nga koy xam te da lay recevoir incha allah li muy def ci réew mi ah, ah man moom a gondi ah, waaw loolu ku baaxu rafetoo xol mënoo te lu ko waayu wax da koo sosal <laughs> naa dégg waali Seck ah loo koy wax ci 24 décembre bi ma nga lay seetaan <laughs> fële ca maakutu waali saw waali nee waali raajax waali toj na raajax eh, fii toj naar rajax mariasin may sa biige may sa biige maar ajum mi ci ndoob njër ka ci làmbaay liggéeyu ndey bitik ku regle pet laajal sa yaay liggéeyu ndey bitik yee liggéeyu ndey bitik ku regle pet mereel sa yaay liggéeyu ndey bitik xoolal ni la yàlla def day faatu jaagaa ko liggéey sa doom ju ndeyam liggéey ku koy yéeneek fande sax day reer nag ba desal waalis si mu sedd ganam ti mu seddaale sax nag umu saw ña ko doon yéene fande ah, xanaa xamoo ni ku réglé pet laajal sa yaay liggéeyu nday bitik mooy yéen ku réglé pet mereel sa yaay liggéeyu nday bitik xoolal defoo ah, deli ci réew mi waxoo fi deli eh, soo woyee mu neex soo misigee mu neex bëgg mbul bëgg làmbaay xoolal sa kër baay bëgg sa kër yaay eey te kenn merul sangu mbay si jaay gumba mi ci mangu njaay waali mi ci bubaal xoolal sangu daba njaay sama seex bi waali réew mi ameel nan koo njukkal waali sekk nan koo jox waali nan ko jox njukkal mi ngi def lu baax te boolewut yéen nan ko jox njukkal mbayam mi ameel nan koo njukkal nan koo jox moom li mu moom ñu ngi def lu baax di wax lu baax xoolal te defu fii deli Baay Faal la Baay Faal la dolewul dara coow eh nan koo jox njukkal dëgg la daan dimbali jeeg nan koo jox njukkal Wally nan ko bàyyi xel ndayam da daan dimbali jeeg gi nan ko bàyyi xel xoolal nan ko jox njukkal ah. coon baayam da daan dimbali góor gi nan koo bàyyi xel. waale nan sa baay ba baayam da daan ci góor ñi xam nga lu ma neex ci yow da am kóllëre. dëgg la. xam nga kóllëranteeg kuy dund yomb na. dëgg la waali mayee million nga delloo ko ko. loolu dafa yomb waaye xam nga lu jafe kóllëre ki nekk ci bàmmeel. waaw waaw. ngay doxal kóllëre bëgg waali ba fi nga toog kenn du yow. nga juddoo ci ngëm nag rek màgg ci diine nag te yaru ci dara. Oumou Sow li ma neex ci yow ak a bari saw sa boor doo seen morom doo waaj ni doo bokk ak ñoom yaa am kóllëre du tee tey du subaa nga ba yaa am kóllëre loolu mar koo waxoot xanaa xamoon ni wax wax wax wax wax wax wax ci biir yi wax nag dama ko seet nag ba xam waaw yaxub taasu dama koo toj ba mu mokk ba mu ne rajax ma soog ko ci mbuus soog ko ci biteel loolu maa ko xool a kodd faal sama a gaa aji ñang maa leen ni woon yaa am kóllëre doo tee tay ah. nga baax yaa am kóllëre day jaaral loo din ko bi ci colam waaw ki ne Fall abi Diallo la taaw ndeyam mbokk ndeyam Ousmane Fall Jordan sama mag jaa nga bensi waaw waaw mbokk ndeyam Pa mi nu jooy barki démb jagaañal ko te néegunu koo suuf Oumou ne mënu lu ray la jomba la ngoy foo dëkk mu la de am yaa kool la ree doo tee bu suba nga ba yaa am kóllëre juróom fukk. non nee naa la tey ñaari show laa boole. non non non dama boole show tëggkat yi. Mm-hmm. boole sowul ndey jaar bu di fi wàcceeg awukatam fii wàcc waaye barke yonent bi tey moom sunu manager toog shérif toog maanaam euh, paradise toog ah euh, kii toog nu mu tuddee prince mi nga ah. xam ne ne nag mooy doomu ndey mu niiru li waaw mu niiru suñ DG bu baax bi nga xam ne ne mooy borom suuf yi xam naa ne mu niiru li foog ngeen dem bureau wax ak moom mu jox leen ci terrain yu baax ah, yi mu niiru loolu nga war a yaay prince ñun géwél yi amaguñu terrain <laughs> te dégg naa yaay joxe terrain yi seet loolu rek tubaarkàlla joxal ma ko kee jox waaw waaw manager jëlal tubaarkàlla ñu dem ci mun niilu ri mu nday jaara gay du may nu kër nday jaara mu niiru may nu kër ñu dëkk ci may nu kër mu niiru may nu kër ñu dëkk ci mu niiru may nu kër ñu dëkk ci mu niiru lay borom suuf koo daggal moo mu niiru lay koo daggal moo mu niiru lii lii kon lii daggal. li koo daggal moo am. moom mu niiru may nu ñu dakk may nu yow sa boor tubaarkàlla dëkk bi doo ko lakk. damaa dégg nga ne taas ngeen lakkee dëkk bi. pompier apaan foo nu jëm. Eh, ma saw rek ci ngoy eh muy woo daanaan yi nag di leen fii di leen wone ah, may mën a dur loolu desee rek nga ngoy nawle bu gën kiir waaw waaw mbokku ndeyam garmi mbokkum ndeyam moor maam peer galle maa mbay galle waaw kumba may mu noon ku dara sa taal tàkk na bul xam sa taal tegal sa jin sa taal tàkk bira sa taal tàkk na bul xam sa taal tegal sa jin waaw waaw umu saaw waaw paradise la ñuy def paradise paradise sañ noonu waaw paradise lay lay la waaw waaw tubaarkàlla tracteur extraiteur xale bu baax nee naa la boo koy toggee da ngay xees. michu michu yaa ngi xaar. bu la toggalee da ngay xees. lépp ci 24 bi. da ngay leer. Mm-hmm. am wér gu yaram. dëgg la waay ànd ak Aïda Souka. Mm. ëpp na ci Aïda Souka boobu nag. moo ëpp doole moo ëpp doole. barke Serigne Fall mooy yëngal. Paradise mooy yëngal. ah nee leen kuy yëngal. Paradise day yëngal ci yi jamono moom mi mooy yëngal xoolal ni mu def ak ni mu ko def kii daal moom mi mooy yëngal ferñeent yi mu lamboo tax di wax moom mi mooy yëngal yëral plan beeg ni mu ko defe waaye moom mi mooy yëngal moo mën xoolal moo ëpp doole moo gën a féete xale moom yëngal moo ëpp doole moo gën a féete xale mooy Paradise mi xool naa ko xool xool ko ba tey li mu def yéem na ma man moo mën a defar ba mu baax réew mi wax naa ko ne leen kuy yëngal Paradise say yëngal bi ma gisee Miss bi bi ma gisee xar ak nii mu ko piqué nga ni la jël neem gi defar ko ba mu baax def ci salade tegal ko ummu saw pël bu rafet dañ ne plateau bi bu leen paradise yëngal ci ji jamono xale bi xew ci jamono moo mën a yëngal walaay macha allah mu neex e, paradise ba mu neex nu dara du ko dindi omo saw lii lépp yaa wax mooma bu leen gërëm ki xambu bi ci taxani saw sa boo may mun a fur moo xambu say ba say waañax moo la jël ci télé bi doo sàcc doo fen doo ma yàlla doo mën sa nga doomi pël set umu saw set seetal <laughs> set xale bu takkul ti lii mun jaal seen jaal madam taal jeeg baa nga Amérique chéri Cheikh Taal xalla jaaga ak taal jaaga mam jaaga mbaw nga maam kuman sa tax boo manaatee sa ey kuman sa tax boo manaatee sa jëkkër xoolal Cheikh teg la ci jaal jaal ba mu neex ma kenn du ma yaayi Fatima yaayi Sëriñ Fallu woy wëndeenu nga Cheikh Alaaji Omar Tall la bàyyam tudd moo daan dimbali góor bàyyi leen ko fi jaal borom attaché la woy wëndeelu nga umu sama ma yónni nii neen man naa la gërëm léeg-léeg sax ma jaar ci biir kër gi di la sànni ngërëm jeeg bu ko ja gërëm gërëm nee nag ca kër ga kenn du ko yërëm waa jaal qu'est-ce qu'il la qu'est-ce qu'il la ngay def lu baax ni kenn du ko wax qu'est-ce qu'il jaal ngay def lu baax di wax lu baax et eh, qu'est-ce qu'il a. mooy Yacine qu'est-ce qu'il a madame Ta ngay def lu baax ci digg réew qu'est-ce qu'il a. yaayu Serigne Fallou Fallou Moussa. yaayu Fatim Taaw njëkk a gudd njëkk a baax njëkk a màgg njëkk a tëdd mooy. Eh, xale bi yaayam a daan dimbali. ndeysaan yaayam a sëy ba sëy jotee moo muñ ba mu jotee. jal dina sëy xam nga ni yaayam dafa sëy. billaay wallaay dana sëy ndax ndaayam billaay dafa sëy waaye njaal dana sëy ah. ndaxte yaayam dafa sëy yaayi saaliwu day sëy ndax billaay ndaayam dafa sëy xoolal bu leen jëmbat ah. ku mënta tabax day yàq ban bu leen jëmbat eey bu leen jëmbat ku mënta tabax day yàq ban ba leen jëmbat xoolal gàcce yi ci réew mi dara dalu waaw waaw góor mën a wax rëyu làmmiñ. Ah. mën a dox mën a wër. xoolal kenn xamalu a baax riigu ci di def lu baax waaye lu leen makki manal makki di audit ngeen di lu leen makki manal. wooy lu la makki manal makki di audit ngeen di travailler lu leen makki manal. Eh, fa jaara xam nga fi nga wokk foofoo xasal ah. mooy delloo fa sab loxo xoolal dabali bu leen déglu kenn bu leen kenn fii nan leen xool ca toog seen TV defar ba mu baax réew mi bëgg leen jox leen loxo ku iñaan te iñat takkal ko takkatu iñati ne ko ci kooñu iñati muy i muy dox di iñat ah. iñati ku foofoo xasan way riigaat faasam looxu ba ay dangay doomi géwél bokk ci réew mi di def ci réew mi dindi la nga defoon a jëgëm yàlla noppi na xam naa sax nag jooja fajul joojo mbir mu yàgg la waaye jooja faj na joojo ummi fii la ko faje set tv gii la ko faje wax nga dëgg wax nga dëgg wax nga dëgg ma leen set tv ku mu xeexal ma sotle ko wax nga dëgg xoolal ii maa ngi digg mbokk yi xarit yi ñuy seetaan waaw kay seen émission nowel ñu fas yéene leen wax Merry Christmas joyeux Noël ah xanaa nag li leen Oumou Show defal tey neex na leen ku jóge ci xol ci xol rek lay dellu seen mbégte rek mooy suñu bànneex ba tax na yaa xajaa ngoy balaa ñuy dem ci suñu traiteur bu baax boobu di paradise mm. dañoo dégg fataa tendance taasukat yi ne nag taasu mooy ndayu rab lan moo tax taasu mooy ndayu rab. waa Fata tubaarkàlla wax lool ñu koy nuyu de passage. <laughs> ah. ndeysaan Moustapha Gningue. lay Fata. toj na dëkk bi bu mag bi li nga def. cuune mu doy na seetaan. ku iñaan du ko def ngay mhm. ku soxor du ko def. dëgg la lay Fata barki démb. ci conférence de presse bu nee naa rappeurs yi nan nu may jàmm 40 ñu ngi wax li nu moom. eey mm. taasooy ndayi rab ku bañ a ko nangu. xam nga sunu maam yi ñu jëlee woon Sénégal. lu waral taasu mooy ndeyu rab lan moom laa lay wax ni sunu maam yi nu jële woon fii mm-hmm. jaare leen ci porte sans retour bi mm-hmm. yóbbu leen néegi Amérique wallaay voyage sans retour ba del si bi nu demee boot seeni doom góor ñi bëgg seeni jabar seeni jarbaat tubaarkàlla pour nu bégal seen bopp bu nuy wal wala nuy togg wala nuy fóot ci la nuy taasu ndeysaan mm-hmm. americain yi nag jël ko di ko di ko kebetu di ko gaawal. di rab ñun ñu koy taasu di ko teg ci temps. Mm-hmm. waaye ñoom ñu koy gaawal. Mm-hmm. loolu moo indi taasu. mooy ndeyu rab. Mm-hmm. taasu dem bàyyi mënta dem bàyyi taasu. taasu mooy ndeyu rab. ñoo bokk ndey te bokk ñu bàyyi. xaxar laabaan taasu mooy ndeyu rab. nan ko nangul fataa. doo ñu ci mosal tuuti ci fataa li mu wax noonu. ba pare porté choix am ci yow. ak sa yeneen i naataangoo taasukat. waaw loolu loolu lu raar la. loolu Fata dootu ko defati. Mm-hmm. ku bëgg a gis spectacle. Mm-hmm. na ñëw grand théâtre àjjuma la 22. incha ndax nag Fata li mu def dafa rëy. dafa rëy génne album def ko sa 15 titres. waaw waaw mu bokk ak taasukat yi. Mm-hmm. jël na ma. ndee la xalaas. taa solog boobu ndeela mu baax mi seka lëmbalu naar ah, ah, li mu taa li mu rab boo ko dootoo ko doli déedéet am bongo am bongo acim ah, yaa woy li bi barke ab laay bitik hmm. déggal ñu def koor gi waaye yooyu waxkat ku leen dajalee ci plateau nag lay demee ah du yomb loolu ndax dina yomb. nañ koy tas léegi nag waa 7TV ñu ngi leen ci invité. Mhm. incha allah 22h ku yeex doo am place. waaw waaw ca Sorano. waaw ta rabta sooy ndaayam. Eh, rabta sooy ndaayam. ndaayam. nday jaara nga ni lan waxam. Fata rabta ndaayam. nangu leen loolu rabta sooy ndaayam. loolu dëgg la kon waxal. Fata ni nga def ni nga ko defee. su ma ko mënee woon ni nga ko mënee du ma ko defee nii nga ko def xam nga ba xam jeex dem Amérique dem France dem Allemagne gëstu xool xam ni rab taasoo yi ndayam nga dellu woo daanaa yi woo ma woo ndee xalaas woo sekaa ku ne nga def moom noosoon waaye doo toog ko neefati rappeur yi pare lii yéen fataa nee naa ko ummi doo bali bali laatu mu jali kenn du la takk du diiri coow li bëri bëri fararari bëri ngay fara fàcc ci defiri ey naan du def dara waaye teewal du tëb ey doom jabat waaye fataa nu mu mel yaayam la nuru kii nu mu mel yaayam la nuru nee leen rab taasooy daayam ay waay waxal ca kaw eh rab taasooy daayam li ci des ma dëxañ ko waaw waaw aja <laughs> doonu ci ñamal tuuti taasooy daayam neel nday jaara rab ko nday jaara rab ko eey ma rab ko fata eey nday jaara rab ko lii daw ci man deretu góor la meew yi ma nam meew mu set la ba tax na bëgguma des gannaaw ba may gën a yees ci samay nawle fitalu gàcce bi nu soxtee tukkër ba yaay ñaanu ma yàlla bal ba dal la ooy fata rab taasooy daayam eey rab taasooy daayam xoolal waay waaw taasu mënta dem bàyyi rab rab mënta def bàyyi taasu waaw lu taasu ko di wax léegi ay rappeurs la ay rappeurs la wax nga dëgg lii daw ci man dereetu gor la mi mën naa ko meew ba tax na bëgguma gis gannaaw baa ngay gën a yëg ci samay nawle waaw te lu gàcce bi di suuf ceetu kër bàyyi yaa ñaan ma yàlla barbat bees tàkk loo xam ne ne Fata mhm. moo ko génne ànd ceeg nday jaara mhm. tey nag ñu bëgg ngoy nga tasul ñu tuuti balaa suñu traiteur du ñëw nga rabal ñu rab tey ñun ñëppay rab ah, kaay nag rab taasooy ndeyam yàlla dogal na ngoy caali rabal yàlla dogal na nag ah xam nga man géwél yi dañoo bëri façon tubaarkàlla macha allah man géwélu communication laa kon bàyyi ma rabal la waaw rabal danga may rabal téye ma ci ah. temps aca la eh, Fata yaa ngi may seetaan yow mm. waaye nday jaara tey dafa ne rab taasooy ndayam ah. e yow mbëng mbëng cool tama harmonisé umu saw tëb nga tëb ma tëb ñu tëba tëb amazon daal di bari feeling kacc bu kiling e yow xoroma sa cin wartalewet faata yaa moom jaara yaa moom e umu saw yaa moom bisoon ongoy e yaa moom bisoon sama xarit yaa moom bisoon e paradise yaa jigéen deret yaa moom mbisoon tas ba re mais yow taasoy ndayam waaw la invité ngeen non yow nga ñëw waaw man kon damay ñëw non Oumou Sow mooy nekk septième bi xam nga Oumou fi mu gën a mëne mooy yi nga xamante ni macha allah dalay bett happy mu muy happy foo te li mu wootee Euh, loolu mooy li mu def. xam nga nit mën nga def sax benn concept moo ñu dëppoo. ak li ngay wax. mais moom def ni show. moo tax tubaarkàlla bi ngay fëgg musóor gi tayoo ko. bidaay te fata ak rok allah. te fata baax oh, mi te ñëpp daal dafa yàgg am yëg-yëg. Mm-hmm. ci originalité taasu. wallaay parce que seetaan naa benn clipam boo xam ne sodoma maa nga ca muy ngénte li. Mm-hmm. waali. laay ndeysaan may sa biige ngi ci. toj fa. kon moom dafa dafa africain. Hmm. dafa gëm loolu. waaw baar macha allah dundal ko. ndeysaan waaye Adja Umu. Hmm. dinaa la waxal benn affaire. koo dendal. tubaarkàlla macha allah paradise directeur day. eh toj na réew mi. paradise tey lu mu leen bu baax bi présenté ñu ko. xale bu yaru bi. dégg lii. tubaarkàlla macha allah Umu. paradise jox ko micro bi foofu. waaw macha allah mu ñëw. ana paradise. waaw waaw jëlabee waaw macha allah. paradise. waaw. tubaarkàlla macha allah. ginnaaw bañ santee yàlla julli ci yonent bi ñu lay mhm. nuyu. sama doom ji nga sagal ñu. macha allah ñu woo la ci nag émission bi nga xamante ni moo karton ci réew mi. Oumou mhm. Show xam nga Oumou Show nit ñi nee na ñu ngi koy gën a soxla jamonoy sedd. parce que du ñu boyal ànd yi. Mhm. nee nañ bu Oumou sowee rek néegi tàng. néegi tàng ruq yëpp xaw a nugg. macha allah borom Oumou Show nga ñëw tey sagal ñu nga nga ci turaay ba ko muy def ay yëf waaw mu ngi noonu. umu ma bàyyi laa paradise euh, tubaarkàlla ba xam loo koy questionné sama doom macha allah paradise nag tey dafa ñëw indil ñu ay plat te michu yaa ngi ci suuf xam naa ne fii moo xaw a kii rek moo tax ñu ne nañ xaar tuuti mhm. ba tax na macha xam nga géwal yi la bëgg nga indi tey macha allah géwal yu riche yi dajo fi nga ñëw indil leen xeeti baax baax ak yi ci kaw table bi mhm. ah, ñu bëggoon nga présenté ñu tey lan nga ñu indil ci 24 décembre bi ci Oumou Show plateau bu mag bi salaamaaleykum maaleykum salaam euh, maa ngi nuyu waa plateau bi yëpp mhm. di la nuyu Tata. Mhm, yow ak Tata Ngoy mu baax mi yu ci plateau bi. di nuyu chers télé téléspectateurs. Mhm. ak téléspectatrices yu ñuy seetaan à ah travers cette belle chaîne. Mhm. di leen wax un joyeux Noël. Euh, bon tey dañ leen présenter ay variétés. Euh, defal leen nem au poulet. Euh, ak nem farci à la viande hachée. fii ñu ngi leen defaral ay cône de cône de tortilla. Euh, yoo xamante ni dañ ko defaree à base de mhm. poulet. ginaar lañ ko defaree. garnir ko ak euh, ak ak euh, ak fromage. Mm. voilà. ci digg bi ñu defal leen touti crudité. Mhm. parce que seetlu nañ ni crudité ça aide à digérer. voilà. pas trop épicé ñu def ko mu simple. Mhm. pour que nit ñi mën ko mën ko consommer. voilà. ma gis da nga teg say plat. xanaa da ko teg pour rek macha allah. Euh, jox euh, service ñu suñu gan yi ci plateau bi. li jëm ci dressage bi. ci dressage bi. waaw parce que Noël dafa nekk un moment bu bu bu spécial. Mhm. voilà mhm. euh, buñ koy buñ koy buñ koy màggal. Mm. dafa war a dafa war a ànd ak ay mbir. ay mbir. voilà lu wér la tax ñu indi lu demee lu lu mhm. demee nii genre variété yi mhm. voilà ak euh, méchoui yi ngeen di wax mhm. ak yeneen i xeet ak yeneen i xeet voilà pour màggal bis bi macha allah xanaa Adja yi nga birale ak moom mu joxe numéro de téléphone am ñu woo ak suñu invité mu ñëw dégusté waaw tubaarkàlla umu yemul rek ci traité macha allah indil ñu ñam yu sell yi mais moom moo décoré plateau bi macha allah kon moom mu ngeeg ñaari facette mu ñaari facette macha allah da nga ko jàng décoration ci jom da nga ko jàng décoration mm-hmm. da génn mm-hmm. bitim réew wala lii ni mu demee mm-hmm. paradise bon avant tout euh, décoration ak euh, cuisine ça a toujours été une passion pour man ouais. c'est un don parce que suñu waa kër commençant par sama waa kër yaay ma koy nuyu de passage sama cousin yi sama famille yu bëri dañu def cuisine mais dama dama dama malgré ça mu nekk don nekk passion aussi dama dem jàngi en même jàng def formation bi mooy nuy sama waa école waa Kayif di nuy sama directeur et tout di mhm. leen di leen euh, mhm. waaw dama dem jàng parce que dama gëm dama gis ne mhm. lépp lu jëm ci biir dañ ko war a dañ ko war a saytu war a sell dafa war a sell dafa war a nekk lu lu lu hygiénique que lu xas ba dugg dootul génn wallaay te métier bi nekk na loo xam ne dafa noble mais deuxièmement boo demee ba di ci dugg war nga ci am ay preuve et mhm. certificat et certitude parce que am na ay ñam yoo xam ne nit waru koo lekk mhm. waru koo boole par exemple tey nga jël dressé mhm. loo xam ne tey lu mel ni crudité nga defar ko jël ay crevette def ko ci mu fanaan nit lekk ko poison la yaa ngi te loolu ak yeneen i mbir